Madame Marcel Gay, enseignante spécialisée à l'INEFJA et formatrice dans le cadre du projet SHE INEFJA qui œuvre pour l'éducation inclusive à Thiès. Depuis que on a cessé les cours dans les écoles, depuis le 14 mars on est en train de sillonner les maisons des enfants déficients visuels puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer pour venir prendre des cours et pour continuer les enseignements apprentissages, on vient leur remettre des exercices. Des exercices qu'ils feront pendant une semaine et je repasserai pour reprendre ces mêmes exercices, les corriger et leur donner d'autres exercices. C'est toujours dans le cadre de la continuité pédagogique. Dans l'éducation inclusive, ce sont des partenaires belges qui nous ont construit des classes à l'école Serigne Hassan à Kausarafal. Et là, La classe transitoire sert de vivier pour les enfants. Donc dans cette classe, ces enfants restent une année pour apprendre le braille, mobilité, orientation, euh, ainsi de suite. Et pendant une année, après une année, ils vont dans les classes des enfants avec lesquels euh, des enfants qui voient pour continuer leur étude. Donc avant d'aller dans ces classes, ils sont obligés de maîtriser le braille pour ne pas perdre de temps là-bas et puis pour ne pas donner plus de travail aux enseignants qui sont là-bas. Mais avant cela, ces enseignants sont formés. Je les forme pendant les grandes vacances d'abord pour pouvoir recevoir ces enfants dans leur classe. Cette année, ils sont au nombre de 13. L'année dernière, j'ai eu 14. Parmi ces 14, il y a eu deux qui sont du secondaire, en classe de 6 une autre en classe de quatrième. Et cette année, cet élève qui était en classe de quatrième est en train de faire son BFM. E elle a fait une année de transi transi transition en, dans la classe transitoire. Là, elle est en train de faire la troisième. Elle fait son BFM e au CM Amadou Kolidjo. On peut avoir des élèves de 6 ans, 7 ans. Ça dépend euh, du, de l'enfant. Parce que quand un enfant qui atteint la cécité en cours d'année scolaire, il faut être en classe de ce il faut être en classe de 6e. Comme je vous l'ai dit, on a eu deux élèves en classe secondaire. Donc ce sont des grands enfants. Parfois, on peut avoir des petits enfants. Donc là, on les forme, on les forme en braille, en mobilité. Après, ils retournent dans la classe où ils étaient pour continuer leurs études. Toujours pour la continuité pédagogique, On les suit à la maison, on leur apporte des exercices, c'est toujours dans le cadre de braille à la maison, c'est pour pouvoir leur euh, donner la possibilité de rester en contact avec les apprentissages et de ne pas oublier ce qu'ils ont appris à l'école dañoo gis ni comme école yi tëj dañ ko ak pandémie bi euh, il fallait que ñu continuer enseignement apprentissage bi et pour ce faire on était dañuy defar ay exercices mën leen a jébbal exercice yi mais dañuy dem ci seen kër yi parce que da di xale yoo xam ne du ñu gis donc mënuñu leen a woo ci lenn ñii ci whatsapp ak yooyu dañ leen di dem ba seen kër jox leen exercice yi mais exercice yi pour une semaine rek lay doon ñu mën koo def bu ñu paree ñu nit ñu jaaraat jël exercice yi corriger ko ba pare joxaat leen yenn day tax ñu mën a jàll classe supérieure su seen niveau baaxee ñu mën leen a jàllal classe supérieure classe transitoire bi façon euh, xale yëpp lay lay jël mënuñu laa wax âge bii rek moo fay nekk parce que euh, silmaxa bi mën na koo dab ci bu mu nekkee mag donc selon niveau bi mu nekk rek ba yëf yi dab ko lañ koy jël recevoir ko pour mu mën a continuer ay jàng jàngam donc dañ koy jël mën ko jàngal jumtukaay yi nga xam ne moom la war a mën a utiliser que léegi dootul gis braille bi ak nu muy déplacé woo parce que bu demee ci classe ci école bi tamit na mu daan demee dootu ko mën a demee il faut ñu jàngal ko façon bi muy déplacé woo donc ñu jàngal ko loolu ba mu mën a delluwaat demaat euh, continuer jàngam sans problème dañ koy def étape par étape parce que bëgguñu ko joxoon woo lépp dañ koy jaxase rek dañuy bëgg di ko suivre ñun itam bu ñu defee une semaine ñu jëlaat exercice yooyu corriger ko ñëwaat joxaat leen yeneen exercice je me nomme Gora Faye Ndiaye je suis le secrétaire général de l'IF de Thiès-Ville euh, aujourd'hui on est là pour euh, euh accompagner le projet PADEF euh, PADES euh, programme d'appui euh, au développement de l'éducation au Sénégal qui a doté l'ensemble des écoles du Sénégal de fascicules Euh, les écoles et établissements de fascicule euh, pour effectivement renforcer euh, le niveau des élèves, surtout en mathématiques. Et comme vous le, vous le, vous le, vous le savez bien, l'INEFJA étant une partie de l'IEF de Thièsville, donc effectivement, forcément, euh, l'éducation inclusive oblige. Euh, on a eu à euh, travailler avec Madame Marcel pour effectivement traduire ces fascicules euh, au profit ou au bénéfice de ces élèves euh, euh non-voyants ou malvoyants. C'est l'éducation inclusive euh, euh, qui, qui, nous oblige à le faire. Donc l'IF, sachant qu'effectivement dans sa circonscription, il y a des non-voyants, il y a des malvoyants, donc, et ces élèves-là aussi euh, font partie du système, nous devons effectivement les prendre en charge au même titre que leurs homologues euh, des écoles et établissements. Pour assurer la continuité pédagogique, euh, ces élèves ont perdu peut-être assez de temps. Certains d'entre eux sont assez intelligents, peut-être même pour passer en classe supérieure sans être appuyés, mais il y a parmi eux et un bon nombre qui sont en difficulté d'apprentissage même au moment de l'arrêt. Donc c'est le moment de les cibler et de les accompagner pour effectivement euh, leur permettre de passer en classe supérieure. IEF bu Thiès-Ville dafa jàpp ni euh, loolu ñuy wax éducation inclusive mooy boo nekkee ci luñ buñ la dénkee benn gox ci biir gox ba na nga xool kenn ku ne ay euh, euh, li ko li ko gàllankoor pour nga xool naka nga koy mën a dugale ci biir lépp lu éducation nationale wàcce ci biir gox boobu kon. ci loolu la programme buñ naa PADES indee ay fascicule maanaam ay téere yu nga xam ni euh, dafay baax pour xale yi nga xam ni dañu nekk ci ay jafe-jafe surtout ñi nga xam ne ñooy classe yi nga xam ni euh, ñu ngi koy woowee classe intermédiaire yi nekk ci diggante yi te jotuñu bokkuñu ci ñuy def examen te toogoon boobu ba léegi kon ñu préparer leen loo xam ni dinañ ci gën a mën a tàggatu ngir mën a euh, passé comme seen ay moroom kon euh, tey jii euh, yamale IEF du ko yemale rek ci école élémentaire yi nga xam ni xëy na ci fala njàccaar yi nekk mais def naa aussi am na ay école yu nga xam ne ñafane fa xëy na euh, du ñu du gis wala seen gis-gis wàññeeku na lool mu ni ñooñu aussi dañ leen di dugal ci biir processus bi kon loolu moo tax ku ci mel ni madame Marcel nga xam ni dañ koy jaajëfal ci tàggat bi ci cawarte gi muy def di dem ci kër yi di yóbbu exercice yi ba pare di ko euh, jëlaat di ko tabaxaat ba nga xam ni ñoom ci ni ñuy bindee muy euh, braille boobu ñuy bindee ñu mën ko cee xàmmee mën ko def euh, nu mu gën a yombe